Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk ñu leen gërëm leen sant ànd ak les programmes de Salam Vision une télévision au cœur du développement tey suñu mi mooy suñu première émission culturelle sur la chaîne YouTube Salam Vision jege askan bi tatan seen i bëbët seen i jafe-jafe tey bi mooy première émission euh, tuddee ko Ousmane Seck c'est le frère à Thione Seck le grand Balago Seck qu'on ne présente plus euh, Ousmane asalaamaaleykum saxo maaleykum salaam xanaa di sant yàlla jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu wayjur yi di sant Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg di ñaanal Cheikh Mountakha yàgg fi loolu téwér di ko jaar na ci Cheikh Bass Abdou Khadre sama sëriñ waaye tamit di ñaanal kilifa diine yi ci ndax Sénégal dafay dëkk boo xam dëkku diine la euh, dëkku jàmm la waaw ñaan kilifa diine yàlla yàggal leen suñu kanam kilifa aada yi tamit. Hmm. ñaanal leen ñaanal defal leen jàmm ndax ñoom seen jàmm mooy suñu jàmm. amiin mais di kontaan lool nag ci ñëw bi nga ñëw. Hmm. seet si ma mu nekk première euh, édition boo xam ni. Hmm. Euh, Salam Vision euh, mu nekk loo xam ni. vraiment mbégte la moo xam ni mënuma wax. fan la nekk. nga ñëw ànd ak sama jigéen sama xarit. Khady Ndiaye. lool. macha allah. lépp fekk ko fi. Hmm. ak Ousmane sama turandoo bi. Oh. moom it euh, di liggéey euh, ñoom ñëpp ci Salam Vision. Hmm. donc maa ngi liggéey képp koo xam ne rek yaa ngi fay liggéey. Hmm. ma di la ñaanal. Euh, di ñaanal internautes yi nga xam ne tamit ñu ngi koy suivre. te di leen xamal ne nag comme je suis le parrain. oui ça va bien voilà. <laughs> euh, Ousmane a été choisi parrain de cette première émission. Salam Culture. Euh, première question monsieur Ousmane Seck. Euh, kan mooy Ousmane Seck euh, ak jaar-jaaram mën nañu ko tënkal si euh, en 30 secondes. Ousmane Seck koy wax dañuy ab géwal la. Hmm. Ousmane Seck ñu gën a xam ci famille Faramareen. Hmm. muy koo xam ni dafa jaar ci ñu bari. Hmm. avant muy nekk leader Ousmane. waaw Fatou Gueye àndal. Hmm. avant may ànd ak Fatou Gueye sax maa ngi nekk ci benn orchestre bu ñuy wax Wareef. te yooyu yëpp laa ma ci tàmbali maa ngi doon def ay woy sindu. Hmm, hmm. takk kasak. am lu ne. waaw daanaka ba ni ma ñëwee Wareef. ndeysaan Cheikh Mbaye rakk Moussa Paté la. moom mu dugal ci musique yóbbu ma ci orchestre bu ñuy wax Wareef. kon ñoom Jimi Mbaye la nekkoon. Paté bay moo doon leader. ñoo fa jógee ci laa xamante ak faatu Gueye. sama cousine. Eh, ñu ànd juróom-benni at. on a fait presque le tour du monde. <laughs> Mhm. Eh, jóge fa ma pend coon ber ko en quatre vingt quinze. Mhm. ma ànd ak moom ma pend tamit ñoo bokk ndey ak baay. Ah. Eh, mu jóge foofu nag. Mhm. après ñëw Ramadaan def fa onze ans. onze ans ba gis ba coon woo ma. ma nag dama lay ber. Ah. <laughs> waaw ma ne ko ah man day wax dëgg yàlla moom moom j'étais bien à l'aise. Ramadaan. donc mu ne ma nag euh, waaw mais man maa lay ber parce que mhm. euh, il temps mhm. donc donc alhamdulilah mhm. ci la ma ber même turu Ouz Bandung sax sama orchestre moom moo ko choisir donc li ko jiitu aussi daan naa def ndeysaan Cheikh Tidiane Tall yàlla na ko yàlla yërëm am day njaay gawloo ma jooju ñu ngi daanaan yooyu nga xam parce que lu ñu génnee maa ko aw euh, Cheikh Tidiane lu mu arrangé presque man wala nday njaay ngay bokk def kër yi yu bëri waaw def nañ ko comme mu nekk apprentissage boo xam ne j'ai pas regretté mm-hmm. donc maa jur Waly Seck mm-hmm. ndax maa coono ñoo bokk ndey ak maa jur Bombaali mm-hmm. ndax maa ma pen dañoo bokk ndey ak waaye Mandiaye Seck mooy sama taaw moom maa ko jur comme ni ma jógee ñee mooy sama taaw yaakaar naa ni foofu doy naa yàq waaw <laughs> Ousmane euh, palmarès bu riche macha allah. benn question ma lay tey. Mm. tu es un artiste professionnel. Mm. bokk ak Thione Seck Ndeye ak Baye. Euh, tey ak Mapenda Seck. Kéba Seck Kéba Seck. Mm. je me rappelle de Mor Dior Seck aux états ah, une famille regroupée. ngeen bokk ngeen bokk seen lépp famille Seck. tey boo gisee monsieur Seck la musique sénégalaise d' abord sur le plan national. sur le plan waaw. nga xam ne peut-être mën nañ ko musicalement mhm. je trouve que ni rythme moo gën a bëri léegi rythme rek la def mhm. lu ci ëpp bon te thème dafa baax mélodie mhm. dafa baax arrangement aussi euh, nga xam ne muy mosay dañ ci passante parfois orchestration li ñuy wax ci biir arrangement xam ne du instrument yi war a exprimer wu. ñu hmm. bàyyi la ñu exprimer hmm. fekkee ne solo dafa am moo xam solo guitare la wala hmm. solo clavier même bu dul solo batterie sax. Ah. ñu ko. mettre ko en valeur. bu ambiance jotee nag mu ambiance. mais bu musique jotee ñu musique. ñu musique nit ki tamit toog di déglu. waaye wi ñu koy tegal. du ko déglu mu nekk lu koy jariñ. moo xam fii ak ba fa nu jëm parce que waykat dafa am responsabilité bu rëy ci diggante boromam parce que dama ñu ne en bi ñëpp la ko yàlla may donc ñu war a xoolaat loolu xale yi parce que euh, li ma libal lii xale ko nangu ba amatul parce que da ngay tuuti sa bopp ñu jóg jàppale la may la succès nga am succès am xaalis mhm. te amoo xamoo dara loolu c'est grave mhm. ça tue l'industrie musicale effectivement parce que loo bëgg a doon sëriñam da ngay dama doon taalibe. jarul yàkkamti. non jarul yàkkamti. non jàngal. Mm-hmm. parce que ku jàng moom da lay da lay mën. Mm-hmm. loo bëgg a mën nit lu mu bëgg a mën rek. Mm-hmm. mën na ko mën. donc loolu la bokk na ci li nga xam ne dafa xaw a sooxee musique bi tuuti. waaw mais on n'est jamais trop tard pour bien a que vous en seen xaar. ah bon xanaa di remercier encore une fois. Hmm. bien que c' est insuffisant. mais ñu ngi gë le président de la république. ak euh, le ministre de la culture. Hmm. ak équipe bi nga xam ne. ils ont pas pensé à ça. Hmm. def nañu ay jéego. bon bien que c' insuffisant. parce que xam nga li lay doy yow rek yaa ko mën a liggéey. dëgg la dëgg la donc jëkk na fi joxe 3 milliards. ñu séddoo deuxième vague ñëw joxaat deux milliards cinq cent. Mhm. cent vingt mille. Ah. xam nga loolu yorul Ousmane Seck. <laughs> ndax dëgg yàlla. Ah, mais nag ñu sante ko yàlla. Ah, parce bu amul woon tam duñ ci mën dara. effectivement dëgg la. te yàlla daf euh, daf ñoo wàccu. Mhm. man bopp. sañ naa yëkkati sama loxo nii yàlla wàccu ma. Mhm. ndax am naa samay nit yu baax. waaw yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, la la bi naan la case de Brahma va balaa moo jël feu. ñoom dinañ ñëw au secours. Mhm. parce que xam nañ ni kuy woddoo la bi. am na tey rafet. la mun naa ci lim sama rakk sama xarit. Mhm. Alenia. xam nga métti Madické Niang sama rakk la moom euh, mhm. moom ko présenté mais di bu baax. waaw fu mu fu mu fu daal xam nga samay jigéen tam samay jabar ñoom Dumbe Waar. Mhm. Euh, ñoom Amikan Tukulër. Mhm. Euh, ñoom Fëri Ndiaye. Mhm. Bolel Saxo moom. jóg ci ko maanaam bu ma ko naree lim dafay bëri. Mhm. mais pour te dire que ni. ñooñu am na sama benn boy bu ñuy wax Badara Lo moom dafa jékki-jékki rek woo ma. mais grand affaire yi métti na de. Mhm. mooy que mais yow mais yàlla yàlla baax na. mun ma maa xaaral léegi teel sa téléphone maa ngi lay yónnee xaalis. yónnee ma xaalis bu bëri. gis nga dugub xam nga ñooñu dañuy xam te man géwal laa bul munul wayal. Ah. donc <laughs> ñooñu jàppale nañ ma man bu baax. waaw ah. sama bopp laa ñeme ah. euh, samay doom aussi. seen ma Ndiaye Seck. Mohamed Seck. Papa Seck macha allah. ñoom seetaanuñ ma. oui te jàpp nañ ci bu baax. donc hmm. samay samay samay même samay jabar. xam nga jabaru ma pend mi ngi ba France. xam nga moom day jékki-jékki rek. waaw ah waaw nga affaire yi ma ne ko daal mënuma tàkk. yónnee naa la bariwul la. waaw kon waaye bari na. fii mhm. ay bari effectivement. xam nga donc ak ñeneen ñoo xam ni. waaw mënuñu ko dina sax di ko wax. Mhm. parce que boo limee da fàtte. te boo juumee man nga am koo fàtte. Mhm. mu foog ne da nga xam nga yaa ma gën a xam. maa ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba nga xam ne Covid bi ni mu waroon méttee. waaw métteewul noonu. même sama jabar. ma propre jàpp na si. vraiment waaw ok. question monsieur Seck euh, quels sont vos rapports. Euh, sa diggante ak ton frère Thione Balago qui un succès éclatant sur le plan national et international. waaw tey Thione euh, amoon na gàllankoor macha allah tey yàlla tey jàppale na ko. génn say jiixi jaaxal. Mm. Euh, quelles sont vos relations surtout avec Thione et surtout son fils Wally Seck qui est en train de ah, relation bi njëkk a am mooy mbokk gi mu bokk te mënuñu ko seetloo. waaw. wax naa la léegi nii. def naa ci moom 11 ans. 11 ans. mu ne 11 ans ku ko nekk ak nit tooñ nga ko. bu ko waxee bu ko waxul. Hmm. yàqal nga ko. Hmm. bu ko waxee bu ko waxul. Hmm. kon muñal na du dëgg. Eh, mu di ko remercier di ko ñaanal gudd fan. ak wér. waaw. yooyu nag. yàlla moom fi bëgg toujours da koy teg natt. te lu ñëpp bokk ak yow day oyof mu jig dafa oyof ñun ñëpp mhm. parce que àdduna bépp dañ ko ñëw soutenir mhm. waxuñu la ñun mbokk yi de mais àdduna ñëw soutenir Thione Seck ba yàlla jeexal la mhm. kon rapport yi am mooy de très relation rapport bi ñu am mooy mbokk bi ñu bokk bokk ndey ak baay sama yaay ñu jur ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñu bëggante jàppante mu muñalante mhm. kon ya rapport boobu moo gën a fort sax yi fi àddina yi mhm. yi fi àddina yi ñu amee ah. nekk naa ci moom def na li ko war ci man mhm. ber na ma jox na ma matériel ah yaakaar naa ni loolu doy na ne xam ci koo nekkal Wally Seck ah. doomam la sama doom la maam ji wala bi may lim ne dama njëkkee Wally Seck ah. ndax mooy seen mag ndax ni coon mel ci ñun noonu la Wally Seck mel ci ay rakkam waaw ñun hmm, coon suñu bunt la mhm. waaye ñoom Wally seen bunt la seen bunt la kon ñu mhm. mhm. yëpp ci bari bopp mooy seytaane dugg ci ba ñuy gàddantee xeer loolu la ñu ñaan yàlla mu lafal mu cat ba loolu bu mu am tey bu amee légèrement yàlla ko suñu borom faxas dootul amati di ko ñaanal famille yëpp na waaw monsieur Seck benn question ma lay posé tey gis nañ tey euh, culture yi bari nay gàllankoor culture yu bari na euh, y a trop de laisser aller xiroo ngaayo bi day faral di am si dans le monde artiste dans le monde culturel tey lan mooy sa jàngat surtout sur ce côté euh, les musiciens doivent se retrouver bokk ndey bokk bàyyi liggéey parce que Sénégal référence la en matière de culture con on parle plus de con mais connu mondialement Youssou Ndour qu'est-ce qu'on peut pour sceller Euh, une bonne relation entre les familles secs et les familles lourdes coow li bari commencer artistes yi li nga wax. Ndiaga dafa way nii. waaw bu njëkkoon. Mhm. ndaanaan daraan jóg keneen ndaanaan. Mhm. mu kasandu ko teeru ko teral ko won ko ay géeram. waaw ñoom ñu ko. Mhm. léegi nag dañ naan la moytul kee. waaw. moytuloo sans nawle. dalay liggéey dalay yàqal dalay yàqal xam nga ba tax na ñuy dawante hmm. alors que l'union fait la force xam nga seetaan waxul dëgg ñàkk na xel dëgg la man de Ousmane Seck hmm. damaa gëm ne lu yàlla am yàlla hmm. booloo bi ngay wax nag créé nañu benn association bu tudd ASMID oui association sénégalaise des musiciens d'ici et de la diaspora L'initiateur s'appelle Cheikh Diakhaté. Mhm. un liggéey na presque pratiquement ak artiste Sénégal yëpp. Mhm. mi ngi dund fii tey actuellement en France moom jabaram njëy na ma. il vit. waaye Diakhaté waaye mhm. ah, ensemble avec sa femme. sa femme donc euh, ils vivent ensemble en France. mais day jaabante. di ñëw. fa lañ ko taxawalee ñoom Tanor ah. Abraham Pipo Diop. Mass Ndiaye. Mhm. Aline Guissé. Mm, bari nañ mhm. macha allah ñoom may sa mhm. ah. ngi si biir. ñëpp ñi ñu naan ah, ñi ñi France. France. France mi ngi fii. ñoom ñoo taxawal affaire ba foofu. association bi gis nañ ni culture dafa xaw a sooxe nag. parce que culture souvent dañ ko war a jox un homme de culture. très bien. Mmh. bu ko defee mu xam lan mooy culture. Mmh. mu xam li ci war. Mmh. parce que culture dafa yaatu. dafa yaatu. mais bi ñu ko taxawalee. waaw ñoom ñoo def seen vote. fal ma man président. c' était à Paris. c' était à Paris. à parce que comme on travaille sur WhatsApp. waaw. on fu mu nag mën a nekk ci rek. waaw da nga yëg. man du woo nañ ma bi ñu ma wooyee. ñu ma. pour ma bokk ci man la si damay bokk. parce que chimicien. oui bokk naa. en tant que membre. waaw ah bi ma wooyee proposé ma nag man leen non du ma jiite samay nawle. parce que tout le monde est leader. te hmm. hmm. ci man sama loolu. waaw dañoo dem ñëwaat ma dugg ci panel bi gis vote. Hmm. pour moi. ma ne ah waaw ah, mais lii nag ñu ma ah tu n'as pas le choix. Ah. man d'accord. Mhm. ok loolu ne se mhm. mais li koy doxal. waaw ah. yéen lay doon. Mhm. damay nekk seen Baay Faal. waaw def tamit te du ma leen su ma amee xalaat tam dama koy tekki table ñëpp wax. ñëpp ma d'accord. donc. ñu commencé ba léegi taasukat yaa ngi ci. fecckat yaa ngi. comédien yi ñëpp. comédien yaa mm-hmm. ngi. ñëpp pratiquement as mi daal am nañ ambition. Mm-hmm. ba tout récemment bi Alaaji Faye bi mu amee problème. Mm-hmm. le grand Alaaji Faye. mooy Alaaji Faye waaw as nit dafa jóg taxaw ko. te as nit ñu bëri xamaguñ ko. xamaguñ ko waaw dafay door a judd. waaw ñu soog a judd. ay mois rek la am. ci biir Covid bi. ci biir Covid bi. donc ñu am ay programme yu bëri. Hmm. yoo xam ne ñoom Ndiaga Mbaye. waaw nga ne moom moom tout ce qui est hmm. yooyu pour affaire euh, sociale. Hmm. ASMIT dafa prévoir loo xam ne. bëggatuñu benn artiste. sol nekk biir as ASMIT ci sol. Oh, te mun nañ jël suñu destin en main. parce que y' a pas de raison pour que ça ne marche pas. parce que y' a tout. ngi biir as promoteur yaa ngi ci biir. ñi mhm. yor studio yaa ngi ci biir. Mhm. artistes yaa ngi ci biir. ñëpp ngi ci biir. macha allah moom daal. les producteurs. lépp mhm. ñu ngi biir as te ba fii may wax yow. bu ma taaloon sama téléphone léegi ñu gis. ni ñaa ngi xamante. ñu daan déggante te gisante wuñ. ñu xamante mm-hmm. léegi da ngay ak ku la neex. Uh-huh. donc loolu c'est quelque chose loolu noonu moom lañ bëgg mu mag. waaw ah. loolu lañ bëgg. mettre en valeur. Mm-hmm. da xam ne dinañ dem ba. Mm-hmm. ah ku culture tam da ngay ñëw. tu vas prendre le train en marche. loolu parce que mënuñu toujours toog di xaar état. Eh, non ne peut pas tout dégg nga. donc loolu daal fa la ñu toll xam naa balaa yàgg na mhm. il faut ñu defar beneen. Mhm. boo xam ni day fekk euh, as nit commencé. waaw ay activité activité am mais. Mhm. lii c'est que le début du commencement. ma ñamal la ci. en tant euh, Euh, en tant que parrain. les projets sont là. les projets sont là les perspectives pour 2021. waaw pour 2021 ñaan yàlla yàlla jël feebar bi. voilà nañ foogoon ne heure bi dina fekk affaire pandémie bi jeex. incha allah dinañ mu jeex. mais nag yàlla moom nañ ko sant. waaw te ñaanal ñi nga xam ni. Mm-hmm. ñoo ci loru. waaw ñii faatu nañu. Mm-hmm. ñii ñu ngi faju. Mm-hmm. Euh, ñii dalagu leen. ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal. Euh, ñu respecté les mesures barrières. effectivement te jéem a ñaan yàlla mu jëlee ko fi. parce que àdduna bépp la. amiin amiin ñuy faatu yàlla yàlla jégal leen. amiin feebar tamit yàlla dimbali leen ba ñu wér. amiin donc lii daal jeex fi parce que lii àdduna bi moo taxaw. c'est mondial oui. Ah, c'est mm-hmm. mm-hmm. monsieur Omar c'est benn question ma lay posé Ousmane Seck le sa doom Wally Balago Seck mi ngi góorgóorlu nekk xale bu baax def social dimbali yenn néew doole yi ñëpp gis nañ ko. di ko rafetlu en tant que père tey lan nga mën a wax tey Wally yaa à tous qui si la gos ah xam nga. joxe dañ ñi day yokk mbëggeel. boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu nañu tabe. Mhm. tabe nag buñ ko waxee. day fekk nga am wërsëg boo xam ne. Mhm. Mhm. nit. wala buy wërsëg yu yaatuwul sax li ngay mos a kus néew. ki gënal yàlla sax. mooy ki nga xam li mu am doyu ko. après di ko bokk jaam. yàlla na wala xat garab naa bani adama lépp lu mu bind rek. Mhm. yàlla ah, yàlla nit a ma ci gënal. kon nag li gënal yàlla. li gënal yàlla. Mhm. lu foor la. waaw li gënal yàlla ku ci góorgóorlu. Mhm. kuy baax yàlla la gën a baax. dëgg la yéene boobu. moom ñépp ko am. waaye nag comme yàlla dogal na mi koy def. ñaanal ko mu gën koo mën. ñaanal ko ay rakkam. ak i magam yi nga xam ne am nañu yéene bi mhm. ñun ñëpp rek ndax ndax kuy def nag sa bopp ngay defal mhm. te it euh, acte la yoo xam ni mhm. yu rafet la rafet boobu mu rafet moo tax tout le monde apprécie parce que Sénégal dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lu rafet dañoo bëgg social social nit danga koy doo koo doo tane danga koy dimbali te yàlla tax effectivement te yàlla tax nag très important très important. kon nag. Mhm. di ko ñaanal di ko ñaanal frère am. Mhm. ak sœuram yi ñëpp mbokkam yëpp. Mhm. ak jullit ci yàlla yëpp. amiin ak yi dëkk ci Sénégal yëpp. yàlla yàlla may toujours nit. lu muy dimbali di dimbalee. amiin waaw mooy euh, Ousmane Seck balaa ñuy tàggatoo Ousmane le dernier mot. wax nga benn euh, projet bu am solo jàppale yenn artistes yi souvent dañuy seen artiste ba mu dee ba mu génn àdduna tey may ma dégg souvent à travers certaines dans les places artistes yi jàppante wuñu seen biir mais projet bi wax projet bu am solo la est-ce que fas ngeen ko euh, bâtir dans l'avenir pour jàppale yéen artistes yi. ah bien sûr. waaw maa biir wax ni. waaw. bëgg nañu di produire sax suñu bopp. na artistes yoo xam ne gëj nañ leen dégg. waaw te Moussa Ngom nee na artiste du daan. waaw artiste bu fonkee liggéeyam. Mm-hmm. artiste du daan. Mm-hmm. yu bëri. dañu am talent donc talent bi jaaxal leen. Ah. mais malheureusement par manque de moyens. moyens seen talent boobu. Hmm. dañu tombé à hmm. parce que amuñu moyen. pour mën a dem studio. Hmm. amuñu moyen amuñu pratiquement amuñu producteur. te producteur même bu amee tamit y a le phénomène de de la piraterie. oui oui oui. donc yooyu yëpp. dafay nekk loo xam ne day. day dafay day pénaliser. artistes yi. <laughs> day pénaliser art. art mhm. day pénaliser bi. bon BSDA def na lu nekk. SODAV ñëw na. effectivement bon def na lu nekk. Mhm. mais finalement ba xam ne ba léegi. waaw c'est combat boo xam ne. ah il est d'être euh, gagné quoi. remporté vraiment. donc peut-être que solution yi dina ñëw ci kanam. incha allah mais asmi daal prévoir na yooyu yëpp. waaw boo defee ñun suñu biir. daal dañuy jàppalante. ba nga xam ni. artistes yi a dund ci seen art. waaw waaw yàlla daal nañ koy dëkk ci loolu lañ nekk. effectivement voilà. une dernière question en tant que <laughs> ah. artiste musicien. Ah. réew réew mi coow li bari na. Ah. l' artiste aussi a son mot à donner. Sénégal dëkku jàmm la mooy dernier bi coow li am si dëkk bi. waaw lan mooy sa dernier message aussi Sénégal c' est un pays paix. un pays de culture voilà. <laughs> dëkku jàmm la quoi. Ah, dëkku jàmm la mais n'empêche ma wax li ma xalaat rek. voilà parce que. Sénégal yàgg naa am coow. waaw du tey. <laughs> waaye toujours rek. li fi mag ñu baax ñu waxoon. Mm-hmm. ñaan ko fi. Mm-hmm. benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. naa mënta ñàkk ndax àdduna nag. ku fi nekk. Mm-hmm. faaw nga jànkuwanteeg. dëgg la yi yàlla dogal. donc te yàlla daf ñëw bind. ci ay yëngatu. yëngatu yooyu nag léeg-léeg mu am désaccord. mais dañuy accordé waat rek avancé. kii gouverne day gouverner. kii opposé kii opposition opposé hmm. bu ko defee ñu def ko ci ñu gën a rafetee. Hmm. ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ay Sénégalais. effectivement ñëpp. Sénégal rek a. kon nañ ko rafetal. Hmm. te xam ni ah. ne day ku ci gaañ sa morom it yaa koy fajiwaat de ku ci yàqal sa morom yaa koy defar kon ñoo bokk mbir yàlla lépp rafet amiin amiin kooku moo doon Ousmane Seck la gërëm la sant Ousmane. Ah. Salam Vision mu ngi lay gërëm euh, tu es premier partenaire culturel. merci pare la émission bi Salam Vision. salaam Culture Salam Culture Salam Culture. Euh, Khady Ousmane a été choisi comme parrain. ba ñu suñu on va sceller un partenariat. di la gunge ñu ngi si biir association bi. tàllal nañu suñu loxo yaa ngi si biir Ousmane ñu lay gërëm la sant. sant beaucoup président voilà. je vais commencer par euh, waaw. dama am ay live yu ma génne. waaw comme promotion yi fi mu nekk nii ñu koy def à daal ñu yónnee quelques live. nga xam ni en tant que parrain. parrain et puis premier euh, invité. <laughs> waaw vraiment ça fait. plaisir plaisir. Mhm. di nag. Ah, ci ñëw bi nga ñëw nii. effectivement effectivement ak question yi pertinentes yi nga xam ni <laughs> vraiment. Euh, damay parfois da def émission nga kontaan. nga xam ne les questions sont très bien traitées. Mhm, mhm. je pense que aussi vous êtes très bien satisfait. ci mhm. réponses yi. donc euh, ce n'est que partie remise. waaw parce que j'aimerais bien ñu defaat beneen. incha allah en tout cas merci. Seck Seck jërëjëf Seck jërëjëf nga gërëm merci beaucoup Ousmane Seck merci.